faral di seetaan day naan Elvision Média saa su ne nee naa laa koy defee mais tey dafa am invité spécial muy tam muy Wally 2 nee la tey comme ni ma koy defee sama rek nee naa sama jiit nag tey dañu fittee xale bi nga la ci àdduna waaye nuyu la. waaw maa lay fay waaye tey ma invité woon Elvision Média ci émission yaay kan Wally bëggoon naa xam yaay kan euh, sa fan yi tamit bëggoon nañoo xam Wally yaay kan Wally pourquoi Wally bon maa ngi nuyu ñëpp di si waat ñëpp jàmm bi si kàmbaaw tey maa ngi sam-sam ñëpp maa ngi nuyu waaye nag boo ko gisee maanaam Wally Seck ko dama bëgg trop euh, naa ne ci musique dama bëgg Wally rek moo tax nga imité ko. waaw dama si style boobu. waaw dama bëgg waaye dama bëgg musique tey te sama yëfu bopp dëgg damay ci kanam ndax aar bi yàggaguma ci. non non Wally d'accord maa ngi foofu ndax nee naa fii loo fi ram rek nit ñi dañu fi romb macha allah ngay woy ci Wally mun ko trop ñëpp di ci kontaan Wally est-ce que préparé li nga xam ne maanaam sa yëfu bopp la yaa ko keneen sa bopp mais voix bi moom xam naa kenn mënu la say jëlee ndax maanaam da nga ko soppi loolu. waaw. maa ngi pare sama fi bopp ndax euh, jàpp naa ne su ma jógee sama le 24 bi 24 mars maa ngi préparé sama single ci la nekk préparation ci la nekk incha allah rabbi. avant Wally fan la woon. avant Wally wa bon maa ngi woon euh, nekkoon ci marché yi di jaay di amira di jaay bon yàlla def tamit ma nekk ci yàlla def def ma artiste ma nekk dugg ci aar bi di waay. manam suma ma dégg bi wax waaye da nga mel ni da nga jóge Touba dégg naa ci ay wax. Ah, waaw ñee ko wax. Mhm. Euh, maanaam nga ñëw di def ambulant ngay déglu waale rek macha allah nga koy rey. waaw dama ma xamante Touba la dëkk xanaa juddoo xanaa gisee lépp waaw bon mais dama ñëw fii nekk di jaay liggéey. maanaam musique bi Touba la duggee wala Dakar la duggee. non musique bi moom fii la ma duggee mais teewul bu may nekk Touba sax dama bëggoon waale. nga imité woon waale. Ah, dama bëggoon waale. mais est-ce que yow waale xam na te Waly est-ce que xam na ne maanaam am na koo xam ne turandoo la mu ngi fi di ko toppaloo. waaw Waly man ak moom Waly mën naa ne non xam naa ne mën naa ne ñu may gis man sama booy booy foofu bon moom ma man ak gis ne Waly bi ci doon nekk ñu moo ñu saafante après. mais du ñàkk mu invité rek tamit nga gis koo xam ne. waaw bëgg macha allah. waaw di li nga xam ne moo nekk woy solo yi xoolal ku gis ni ngay solo macha allah euh, Waly nii lay solo. invité gu ma mais man bëgg naa mu invité ma uh-huh. ndax dama ko indi sopp su invité sopp ko loolu uh-huh. ndax keroog bi ngay béy ñëw ma ak moom xam nga ay paf photo ma ak moom mais boobu tey laa mujjee laa mujjee kii at si moom d'accord. waaw loolu après dinañ ci ñëw ci kanam wàllu fu mu nekk nii lan ngay préparé dégg naa yaa ngi préparé fête bu rëy a rëy. waaw maa ngi préparé fête bu rëy a rëy le 24 mars waaw sama anniversaire fii di PDS bu Sicap Mbao du woo soppe yi bàyyi waale yaay waale mag waale yi. rakwale je jep ma len ci wom dina xam le 24 mars tere parce que musika mbaw inshallah rabbi man wali de dara rabbi yam fof kep du do wali wali deg na tamit ñu sha Allah da nga mel ci trono da nga am bayre ba pare manam da nga am ginaaw li nga xamne moy jigen yi ndax jigen yi deg na ñu sopp nañ la lol lol lol ndax jay tar nga wa lepp lo gis yalla ko def ci doomu adama man nit ñi tax ñu soppal ya koy liggéey da bo nekké ci biir geew programme boo mën di joué wala nga invité lu mën di boo duggee dafa fulla ci lañ lañu te man li may def ma boo duggee ci seen bi macha allah dañuy may li nga xam ne mooy xaalis waaye sa loxo bi dafa gàtt waaye sa turandoo programme. ah gars yi de kër gi yi ñoo ko wax nee du maye. non man damay maye heure bu ma génnee programme moom sama sport. tëggkat foo mën di nekk dinaa la may su ma nekk sama ginnaaw may. waaw Wally nit ñi euh, dafa am loo xam ne da leen yéem trop Wally dafa toll li xam ne moo nekk am naa Wally kon bëggoon naa xam kan moo nekk sa ginnaaw instant bi liggéeyatoo yaa ci li nga xam ne mooy wuy bi waal yi kan moo nekk sa ginnaaw ku lay doole ku lay jàppale di la jox ngay sañte ah ba xale jigéen di la gis macha allah di la topp programme dégg naa bu desee dañ lay toppee nu la ci ki may jàppale mooy maanaam bàcc machamba bàcc waay nekk taalibu Serigne Bamba nekk ku baax moom damay jàppale damay jàppale ci wàllu moyen damay jàppale ci ci xel mu sell di ma conseil waaw nekk ku baax bàcc waay moom nekk ku baax nekk grand ku baax daal macha allah dama jël ci yu bari moo tax tey it wàllum am laa ko woon nekkatu ma ndax temps aar bi maa xaw a tënk waaw maa ci musique bi musique bi ma xaw a tënk loolu tax. waaye nan ngay dund ak sa ménagère. waaw sama ménagère moom waaw maanaam moom moom lenn am bu ma waree gis nga dama répétition su ma wooyee ma dem répétition su ma nga yem laa yem programme bu ko bu jotee moom mooy waxaale programme. est-ce que moom man na lu mu doon. waaw man dégg naa ménagère bi matul lu mu doon de. yaa yee ko wax man non man na li mu doon macha allah macha allah man na li mu doon macha allah koo xam si di man dama dama digal dama dama ci yu bari macha allah. ndegam waaye loolu la wax du ñàkk nit nga nekk moom euh, ñu naan bëri mhm. yoo xam ne da ngeen da ngeen koy def seen biir bu noonu da ngeen ànd tamit chaque euh, fois da ngeen juróom. bon loolu mënu ñàkk loolu mënu ñàkk maanaam moom dina jëlee ñu wérante mais tamit bu kenn koy demee tëdd da nga xalaat sax da nga waxtaan kii wax dëgg la. xam nga bul xëy nekkaat mais du xuloo mukk moom. Hmm. damay jàppale moom Waly euh, jamono bi maanaam fu ngay dem euh, nit ñi di la fi gën a ràññee du ñàkk di tëgg programme nga dem fa muy soirée wala muy dara hmm. fan ngay faral di dem. bon man euh, boo xoolee keroog maa ngi woon ràññee ay sàmm yu fa invité woon ràññee naa kër. kon ñoom ay sàmm ñëpp ràññee nañ la. waaw ràññee na man Manel a. fekkee dafa ak sama gànnaay ay amati ñoom ñëpp. nga maa ngi xam naa ci kanam tuuti yi dina ginnaaw ndax yëg naa euh, sa sa sa sa aw amel ci la tudd. amel ci waaw ndax nee naa leen du yomb macha allah. ah amel ci xam naa ci kanam tuuti dinañ fekk ci li nga xam ne moo nekk euh, plateau bi macha allah. Euh, bëgg naa ñu yóbbu waa El Vision Médias tuuti rek ñu xool voix voix voix bi. El Vision leen di way dinaa leen wayal wayale. البسوا مجاليو لا لا لا لا زيستا سينا دينا لجين دينا لوجا زينا خلي باني دي كي مو امانا بيرسوناليتي بغي البسو بمو جيخ ela so taalibi sëriñ Masamba dama lay way di la ji di la kaje kii moo baax yaay sa yaay liggéey sa kër baay eraso te ma ngi la kaña la tagala sita sayna affaire bi fii la El Vision Médias lay tiitara woo woo woo allah yi la ko déggandoo loolu mooy daal bàyyi maateem du maatee borom borom yaay yu baax yooyu muy élargi loolu si rek ah bëgg naa tamit. Euh, loolu sant. ah loolu daam si rek ah, man loolu a sant. ah waaye moo tax nga baax moo tax nga baax. lan ngay wax euh, ah? waaw Wally Seck leen laa koy wax bon man wali Dew dama lay bëggee te su ma sañoon ah, nga invité ma man ma lay wu toog nga recevoir ma lay toog nga mhm. bëgg naa la trop mhm. waaw ndax loolu laa lay ñaan su ma ma mhm. man Wally Dew dama lay bëggee dafay fay tëgg a ko ah, bëgg bëgg na laa gis euh, te yow def naa di ko def ndax borom baax nga. waaw keroog man ak moom moom gisante na mais xelu boobu xam naa. ndax keroog pay bi la gisante woon man ak moom. Mm-hmm. mais boobu dafa waroon joué moo tax boobu teel dégg naa da nga wàññi ne booy dugg ci géew bi gars euh, boo yuuxoo sax dañuy yaakaar ne waalo bu mag bee ñëw da ngaa waane da nga bëri ay cifir def say affaire di feebu ndax bi nga taxaw ko tey yaa ngi mën ci ay tuj. waaw lii moom matériel <laughs> la si man mais li nga wax normalement bu may dugg gars yi di ma xaalal ma li ma la wax sànq rek. yaakaar naa jàll nit ki boo nekkee artiste da ngay osé maanaam boo duggee ci géew nga def fulla waaw te jamono ji xam nga rek yàqu na yàqu boo xam si ne booy ko xam rek sama gars yi force ñu escorté ma xaaral ma xam. mais waale tamit waale tamit bu ba gars ba ba gars yi di la protéger noonu. mais tamit euh, xam nga rek doo tëjuma fenn dama sant naa la ah tey bëgg ku ma jàppale. mais nag tamit am loo yàlla koy def ci nit man moom dama man moom dama dama dama dama osé man dama osé ba ñëpp xam ne euh, kon yéen a ñoo leen jàppale ko dama bëgg euh, dañoo fekk ma ci plateau bi ñu daal di tey fii dina wàccee li ne ci man yi dañ bëgg dama ko dama leen may dara euh, la fay ci loo nekk sant yàlla bu baax maa ngi jàmm maa baax ni waaw gis nga. ah nuyoo nuyoo nuyoo. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waa Sicap Mbao jàmm gën maa ngi liggéey ñëpp tali karo maa ngi ziar ñëpp su ma limee rek damay dugg. pourquoi Ameth Thiou. waaw Ameth Thiou moom comme ni ma la waxee dañoo nekkoon ci marché yi maam moom yàlla def ñuy jaay bu imité waale ma jël Ameth Thiou ñu jiwloo lu neex après ci la affaire bi demee daal ba saa yu dugg ci aar xam nga mu nekk waale ma nekk Ameth mhm. Thiou. maanaam ñu ngi koy defee noonu. waaw ñu ngi koy defee comme ni ko waale defee tamit man ma ngi koy def comme ni ko Ameth Thiou di defee mais kon waar bi def si waar yaay nekk ci peggam bi. incha allah ba def si waar ci peggam. bu ne chance rek nga ne ma kiis. lan nga wax Amady Thioune. sama xarit sama mag maa ngi koy siyaare baax di ko bëggee di ko nuyu dafa baax. ndax keroog dañoo dajee laaj yow tamit. waaw xam nga dafa baax mhm. a sax mën naa ko. wax leen ak gars yi kat ñoo gën a wax ak yéen. waaw dëgg la amit comme li ma koy wax chaque jour bu ñu waxtaan la sax. li mhm. ma koy gën a wax dañu gën a sonn mooy ñu jàppale ñu nga xam ne ñun ay jeunes talent yi ñu ñu ngi dégg ñu ngi koy envoyé suñuy affaire mhm. ñu jotu oote laa amul te incha allah bëgg na le 24 mars bi tamit. ñu ngi def lu mu mën pour mu ñëw Wally Seck sax ci loolu lañ nekk ñu ay démarches parce que gën a ñëw si Tamba. incha allah ak ñeneen ak ñeneen. mu nekk rek mu ngi fa te am mu nekk rek Wally Seck mu ngi fa mm-hmm. yéen a ko allah ñii ay xale lañu euh, te gis ngeen ni ñuy def neex na trop euh, macha allah tabaarkalla ñëw leen ngeen jàppale. Mm-hmm. lan nga jàngatoo. waaw di leen xamal leen soppi. mais attends balaa ngeen tàggatoo bëgg naa tamit nga daal di yuuxu tuuti rek ma ma ma ma bëgg xale il bison. waaw waaw. Maria gis nga ni. Moussa gis nga ne el bison neexee. waaw waaw. ñi amuñu moroom. déedéet. waa il bison maa leen bëgg loolu. Cima. wala sista say naa ni mu taxawee waaw. ak a jongo ma. El Hadj Sow talibe waaw waaw ki mooy murid bi bëgg Sëriñ ba mu jeex. nga ni ne bul ko gis muy démba yaay. kooku. nga di ko séedee lu ñeew jëw baaxul El Vision lay tiitaroo bala ay suburi sëriñ Mbàkke maaram Mbàkke Mbàkke bul ko gis muy dem waaw ay de suy mariasin nga di ko séedee de nga ni lu ñeew jëw baaxul ba bàyyi seen maam loolu dëgg la sëriñ de Mbàkke Balla ak deex kooku maam Thierno Ndamal Daaray Maam. waaw waaw. Idrissa Mbacke baal ma daana boora ma diyaana wayal wayal Saxiir Mbacke baal Sëriñ Daara Mbacke baal Sisa Seyna man maa la wóolu itiraasoo loo ma siree du war mbaam bala caag moo war ndaam cey maar haye ahiya sararam sararam sakin ah! sakin caca am safan mama sama falido mama sama falbu sora jarai sora haye ahiya ci bi dambal bi bi nda eh eh ah woy naa la zeyna mariasin ku jël na la ñaana waliga tasar jël na jijjin taas wës libu ndaay dan jéego doxal juróom ba say nee undéggal sayna wanaala man sayna waaw xale baa ngi tasa ginna jijjin taas bës jikkal aye ah, waaw nga bi am nga maana maana te bi gi gisal rek gisal gi gisal ma tasal ma tasal ma tasal rat sal gi gisal ngi ni xale ah iye waaw maar am nga maada maada. macha allah yéen a ko dégg loolu ndax nee naa lu neexul day ndax su ma toppee waali bi rek nee naa dama ko jógee xool sedd na trop trop trop waali nag boo déggee li xanaa war ngaa génn jàppale doomu baale yi xale yi nit yooyu macha allah tabaraka allah lan ngay tàggatoo. waaw nuy gars rek sama xarit yi xam dama hmm. bëri ay xarit jàmm si gàmbaaw borom kalaa nuyu ñëpp dañuy liggéey di leen siyaare bu baax di leen liggéey ñun daal ñoo ngi ne di leen wax nag invité naa ñëpp le 24 mars incha allah terrain basket si gàmbaaw dama bëgg ñëpp waa jàmm ñun fépp suñu dem jàmm gën dem semaine bi dañuy dem parcelle ñu dem géej waaye fële la ñuy dem mais barki sëñ si Kamba da xam ne daal ma leen xamal ne man Waly de seen Waly laa xam ne daal fépp fi nga ma soxla maa ngi fa te it euh, di siyaar tamit li ma wax sànq ni bàcci waaj bàcci waaj nekk sama grand bu baax di ma jàppale jël alalam di ci def macha allah nekk grand bu baax kon su a mën a jaaree ma koy sant tey soppe yeeg fans yi yëpp rawatina jàmm gën si Kambaaw Këri Karo Samsam ñëpp Dakar Ndiaye ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm xam ne waale bu si Kambaaw ñëpp maa ngi leen di sant tey di sant Ahmed da ngay juum gars yëpp sant jërëjëf macha allah yéen a sa la puissance ànd ak yéen Wally Seck lay tëdd sama jiit ku ma sant rek lay tëdd tey xale yi nag ñu tëdd waaye xale yi mayu ma dara gis nga tey luñ def ci plateau bi nee naa leen damay tàggatoo saa su ma def ak ñu laaj nga koy yëpp mm. di nuyu sama jëkkër jooju nekk ba xam ne fii état naa la bu baax loolu daam sëriñ nuyu naa la sama papa jooju nuyu naa la bu baax a baax ciao ciao